lan ngay ragal ku sëriñ Fallou nekk sa maam lan ngay ragal man maam Thierno daa daamal daaru mooy sama maam namuma ko de mais dafa nekk lu am sëriñ Mbacke Bousso nekk sama maam kon lan la jën di ragal ndox kon tey su ma waxee damaa war a wax su ma waxul damaa war a wax surtout ci koo xamante ne dañu laa fekk fa nga nekk ñu tooñ la jaay la doole ndax ku nekk xam na ne ni ñu ma jàppee booy na ci noppi Sénégal yëpp dañu maa fekk dama dañu maa fekk sama biir oto. kidnappé ma jaay ma doole force ma daan may tëj te yéen ñëpp xam ngeen ne ci ay tappaleeki fen rek lañ ma tëjee tappaleek fen yooyu ñu ma tëjee nag ci ay tappaleek fen dong tamit lañ ma bàyyee kon jàppale ci ay fen tëj la ba noppi ñëw ne la doo wax loolu kon ban réew lañ nekk kon man su ma waxul rek dictateur bi bi ñu fi installé kon man damay ànd ci loolu te loolu duma ci ànd mukk ndax man fu ma dëgg fekk rek fa la may bàyyi bi ñu ma fekkee sama oto Euh, fekk ñuy dem benn pick-up daal daw ba wër ñu daal ñuy arrêté taxaw suñu kanam sama chauffeur sax dafa freiné maanaam brisque mais bu fekkonte ne man maa yor oto bi damay foncé seen kaw bi ñu wàccee ñoom ñu ñu wër oto bi euh, sol ay soluñu tëni mais dañoo civilu ñoom ñëpp yori fetal mel ne kuy jàpp koo xamante ne criminel la wala bandi la bi ñu ñëwee ñu taxaw ma wàcc sama vitre vitre leen lan la ñu ne ma police man leen waa léegi lu mu doon ñu ne ma dañoo jot ordre ne nañ la arrêté man leen waa d'accord man leen léegi an seen carte ñu génn seen carte daan may wan ma xam ne ay policier lañ ma wàcc sama oto ñeneen ñi nekkoon sama oto ñu forcé leen ñu wàcc bu ñu wàccee ñu taxaw fa pendant deux heures de temps parce que ñoom nee nañ ordre lañ jot te ordre bi ñu jot xam naa ne moom la ñu waxal parce que téye nañ ma deux heures de temps yoo xamante ne ñu ngi ma téye ci biir ci terrain bi ñoom nekk ci oto bi di woote biñ demee ba nga xamante ne taxawaay bi yàgg na fa lool ba ma woo ma Matar Sarr seen naataangoo wax ko ko taxawaay bi yàgg nag ma ñëw mën a leen da ngeen maa jàpp da ngeen mën yóbbu ma mënu leen ko cinq minutes la leen may bu cinq minutes yu jotee bu ngeen ma yóbbul ma taal sama oto dem te ni ma ko waxee woon noonu noonu la woon amee su ma doon cinq minutes ab néew la ñu yóbbu wala ñu man ma ne ma daan may yóbbu parce que man moom du ma ragal yàlla def deux minute lañ ci teg ñu dugg seen oto am ku ñu woo génn bi ñu génnee daan may ne ma coppet duggal seen oto muy pick bi bi ñuy dem ñi ma àndaloon muy sama benn rek ak euh, sama chauffeur ak euh, sama benn maanaam secrétaire ñoom ñu ne sëñ bi ñu yóbbu nii te xam ñu fa lañ ko yóbbu nañ ko topp parce que maanaam wóorul parce que ñii nee nañ ay police lañ mais war nañ sëñ bi kàttam mais wóorul ñu nañ ci topp bi ñooñu toppee ci oto bi ñu ñëw ba ci police Mbàkke pick-up bi dugg sama oto bëgg a dugg ñu dàq leen leen bu leen fi gaare bi mu duggee ci biiru enquêteurs yi euh, ñi ma ñi ma àndaloon ñëw dama xool ñu téyewaale leen léegi euh, enquêteur bi ñëw di ma diglu ma ne ko yow léegi lan moo tax ngeen jàpp ma mu ne ma euh, événement bu toll nii ñu jàpp ñu bari te jàpp ñu sëñ sëñ Assane Mbacke kon day mel ne ñun maanaam suñu liggéey dafa des ma jàpp ne nit policiers maanaam walla wala gendarmerie bu ñuy jàpp nit dañ ko war a jàpp lu légal lu jaar yoon mais ñëw jaay nit ki doole jàpp ko ba rek wax sa làmmiñ dànne bu ñu la jàppul day mel ne kon ñun liggéeyuñu Sénégal lii moo fi am nii la ma jàppee bu ñu ma jàppee bi ma jàppee daan may yóbbu Mbàkke tegal teg ma fa àjjuma samedi dimanche te li ci gën a xoromu mooy xam nga mënoon nañ laa jàpp sax ci mais dañ laa jàpp ba noppi ñëw di wax ak yow naan la bàyyil sonko ñu bàyyi la bàkk sëñ Bàmba bàyyil sonko ñu bàyyi la man leen man da ngeen maa jàpp ma kon fii ma toog awuma lu mu fi négocier da ngeen may bàyyi wala ngeen daan may yóbbu rek euh, léegi euh, vendredi samedi dimanche lundi ñu naan ñuy déféré parquet bi ñu demee lundi ma amaat retour de park muy benn mardi bi ma ñëwaat ñi ma àndaloon ñu mandat dépôt leen man tamit ñu amee defaat retour de parquet nga xam ne quatre fois lañ ma def retour de parquet te quatre fois yëpp lenn rek moo ko waral sans supposition ñu ñu man laa bàyyi. ma ne leen nag man comme que ñi ma àndaloon mandat dépôt ngeen leen man maanaam gor lay doon même bu ma demoon juge bi ne ma bàyyi naa la ma taxaw foofu maanaam offensé ko parce que dama ànd kii nit ñu jàpp leen ba noppi ñu may bàyyi di leen téye. bi ma ñëwee juge bi na ma dañ noo dañoo li ñu lay toppe mooy yow yaa organisé woon yow yaa organisé woon manifestation ba ba ay yàqu-yàqu am fa en même temps tamit dangaa xërtal ndaw ñi pour ñu song alkaati yi ma ne ko bu dee ne bu dee bu dee ne man damaa xërtal ndaw ñu song alkaati yi doo ma génneel benn vidéo bu ma waxee ne ndaw ñi song leen maanaam alkaati bi ci topp mooy euh, manifestation bi du du ngeen ma indil sama tur fu mu nekkee ci demande autorisation bi wala ngeen ne mën naa ko organiser kon di bu ngeen ma jàppee nii da ngeen jaay doole te yow monsieur le juge lenn rek moo ma moo ma jaaxal ci yow parce que dañoo dañoo jàppoon quatre-vingt nangam personne indi leen bi ñu ñëwee ñu jël ci cinquante cas yi mandat dépôt leen ñu ci des ñëpp ay élèves lañoo ak ay étudiants. bi ñëwee ñu nekk ay élèves étudiants ñëpp dañu leen a bàyyi ki ki ma àndaloon muy Soxna jóg nekk étudiante waroon na def bac ren ñu mandat dépôt ko ndax lan maanaam ànd gi ma àndoon ak man loolu lan moo ko gën a nekk tooñ kon man ma jàpp ne ki nga xamante ne mooy Samba Bathily yoroon dossier boobu dafa far parce que bu farul woon na mu bàyyee étudiants yee dina ko bàyyee étudiante yi bàyyee yàq na yàq na njàngam mandat dépôt ko ci loo xamante ne tegul fenn. bi ñu mandat dépôt mu neex ma lool nag ndax man moom ku ma jàpp ci dëgg jàpp ma ci loo xamante ne nekkul yoon fierté laa ci am fi ni damaa am fierté ne man damaa génne kaso ndax dañu maa tooñ ñu tëj ñu la ma fi tëj 4 mois bi ñu ma fi tëjee 4 mois proposition bu ngeen yaakaarul rek ñëw nañu fa wax ma ko ne ma bàyyil Ousmane Sonko ñu jox la lii nga def déclaration te ñoo ñu naan ma bàyyil bàyyil Ousmane Sonko Ousmane Sonko leen gën fuuf kon man am na loo xamante ne ci biiru kaso duma ma fa nekk mukk naan maa ngi négocier ñu ne ma ah kon yow bëggoo génn man leen ak lu ñu ma doon rek bu doon ñaari at sax baax na ñu demaat ba ci yàgg ñu may def la waat beneen audio ne ma naa def audio boo xamante ne damay wax ne bu ma génnee du def déclaration duma leen attaqué du ma wax dara su boobaa ñu man maa baay mooy ci maanaam korite gi mën na leen. bu fekkente ne loolu la ma xam ne kon di ngeen ma mandat dépp waaw dinaa fi yàgg ñaan ma fay bàyyiwaat te li ma gën a métti ci loolu mooy dañ maa euh, Samba Bathily dafa maa téye deux mois quinze jours yoo xamante ne nangul kenn gis ma du bàyyi du ndey du yaay du mbokk du xarit du jege ñaar du sama avocat ku ñëw mu bañ na du la may visite te bu keneen ñëwee bokk APR wala mu jege APR mu may la nga ñëw visiter ma ba noppi di jéem a négocier ak man naan ma bàyyi ñii dañ laa seetaal ñi baaxuñu ñi nitu fitna lañ xool leen loolu maanaam yéen askanu Sénégal yéen laa wax ne xool leen loolu ki nga xam ne ay mbokk ñu koo gis ay jegeñaale mënuñu koo gis ay avocat mënuñu koo gis nga autorisé ñeneen ñoo xamante ne benn bokk bokk yaakaar lañ bokk ñuy ñëw di ko gis kon dama naan Sénégal kon man man damaa wax ne dëkk bu jaar yoon yoruñu ko dañoo yor njiit yoo xamante ne dañuy maanaam gëlëmal kon ñi nga xamante ne dañ leen a jàpp ñuy ñu ne dañ leen a ay manifestant muy xale yi nga xamante ne cinquante lañ fi ne nii ña nga fa te après 10 février boobu am na ñeneen ñu jàppoon ñoo xamante ne dañ leen a bàyyi nga xamante ne ñun ñun ñu jàppoon nga xam 7 mois la ñu téye xale yi ñu ngi seen huitième mois fi nii te ba tey ji maanaam bàyyeeguñ leen te xale yi lu ñu leen jàppee yéen su ngeen ko déggee sax ay reetaan daf leen a jàpp ndax koo xamante ne dafa dugg ci oto Mbàkke Touba di ñibbisi ñu arrêté Mbàkke Touba bi wàcce nit ñi jàpp la daal di yóbbu wala ñi nga xamante ne dañoon ramasse guddi gi police yi dañoon ramasse jàpp ay nit boole leen ci manifestant yi ne ay manifestant lañ am na koo xamante ne mayop maanaam Sénégal moom la sol moom lañ ko jàppe ne ko da sol mayo Sénégal moo tax ñu jàpp la am koo xam ne dafa takk drapeau vert son rouge ñu ne ko li nga takk moo tax ñu jàpp la am koo xamante ne Xarim Faye nga xamante ne maçon la ñu jox ko santé mu koy liggéey ànd ak doomam wàcc ñu jàpp ko jàppaale doom ji te Xaadim Fay moom bañ koy jàpp dafa amoon ngénte te ngénte li ci biir euh, euh, maanaam ci biir détention bi foofu la ko ngéntee maanaam foofu foofu noonu la ko ngénte li fekk ngeen xamante ne ko moom bàyyam da doon misère loolu di naqar loolu ba xëy daal di faatu muy Mamadou fay te ni papam faatoo noonu noonu la ko ñaan baara sëy papa moom tamit yaayam tamit noonu la misère jàpp gi gi leen jàpp tooñ leen ba xëy daal di faatu noonu mu amee ci baara moom noonu la amee ci ku ñaan maam góor cuun noonu la amee ci tamit ku ñaan maanaam dibaa ñoom ñëpp seen i wajur génn na fa àdduna ci aw naqar ak tiis kon Macky Sall li mu teg ñooñu xol bu naqari boobu li mu teg wajur yi li mu teg li nga xamante ne maanaam ay jege lañ ñaar lañ ay xarit lañ àq jooju yàlla na ko dal àq jooju mu teg bépp Sénégal boo xamante ne dangaa ñëw sa yoon nekku ci ñu jàppal na ne yow da ngay manifester tey la fa huit mois àq jooju Macky Sall na ko dal kon damay wax ne xale yooyu ñu jàpp nañ leen bàyyi defuñu dara dañu leen a tooñ ba noppi tëye leen ci loo xamante ne amu leen te ñooñu Touba lañ dëkk ñii dëkk mbake ñu nekk ay doomi Touba nekk doomi Mbacke kon loolu lépp day firndeel ne Macky Sall li mu doon wane rek ci diggante Touba digganteem ak Touba mooy moom bëggul waa Touba ndax bu mënee jàpp ndawi Touba tëj jàppi euh, sones Touba yu tëj te ba tey jii dégguñu kenn ku ci wax kon loolu ñaaw na trop te ñiñ jàpp ci ay détenus bari na te ku ci nekk maanaam am nga sëriñ kon damay lancer rek sëriñ si nañu wax wax ak Macky ñu bàyyi xale yi parce que xale yi fee nekk sonn nañ fa te it ah jaaxle nañ loolu tamit de te ku leen fa wàllu ñu jël te man damaa teg sama loxo ci kaamil waat ne defuñu dara kon nag am na loo xamante ne day bëgg a metti bi may commencé di sant damaa fàttee sant xam nga xel rek maanaam dafa mënta mate la ñëpp waaye su